mbokki jullit yi noo ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen ndokkeel di leen jéggul tooñ gu fés ak gu fésul gun yëg ak gun yëgul ci bis bu tedd bi xaasatan ak ci fukki fan yu tedd yi amatan nga xam ne dee ci ful yoolu jëf ju baax laa qadarallah ñu ci fulit bàkkaaru safaan ak mbugal ga ca baaxoo am bu àndul ak njëggal yàlla na jullit yépp am ak njëggal amul nag jenn jëf ju baax ju ab jaam mën a jëf ak lum rëy rëy te yàlla farataalu ko ci moom man caa ame lu toll ne li ku tabaski mën a ame ci tabaskiyam bu ko yàlla nangoo ci tuyaaba ak doonte ne dafa tabaskiyee tabaski ma gën a suufe daraja ci luñ mën a tabaskiyee te fekk nag loola la am tem yéene itam la gën a mat ak nonte ne itam ki tëbaskiwul daa jëf-jëf ja gën a rëy ci lu jaam mën a coobarewu jëf ko ki jëf-jëf ju rëy ji bu tëbaskee ne moom nag te moom it yéeneem sell yàlla rekk tax nga neelul yàlla daal di ñëw nag mu war a nangu dogalu yàlla dalika fadlullahi yutihi man yashaa wallahu dul fadlil azim yàlla dara waru ko ci kenn wala lenn kon sañ naa gën leen te def la ko soob te moom rek moo jagoo lu mu bëgg a def man ko te du diisoo ak kenn faalu li ma yurid yafalu ma yasha wa huwa ala kulli shay'in qadir yonent yim tànn ci nit ñi sax yemalewu leen juróom yam ca tànnaa nit yemalewu leen tilka rusulu faddalna baadahum ala baad wali yi noonu malaaka yi noonu lanee nit noonu rek lay deme kon ku mën a tabaski ak tabaskiim ci bis bii na xam ne dara mënu ko wecc maa amila aadamiyun min amalin yowma annahri ahaba ila allah min ihraaqi dam innaha la taati yowma alqiyaamati bi quruuniha wa ashcaariha wa arlaafiha wa inna addama la yaqamu min allah bi makaanin qabla an yaqaa min al ardi fa tiibu biha nafsa li ñu koy mën a ci xar mooy mu am at bu jàppandiwul mu am fukki weer juróom-ñetti weer ba ci juróom-benn weer lu néew néew bu dee ci bay mooy wu dugg ci ñaareelu at nag bu dugg ñetteel bu duggee ñeenteel gënati géléem gu dugg juróomeel bu duggee juróom-benneel gënati lu ñu ci mën di doon it bu mu am jenn ayib jufes gi bokk ca ñeent ayib ya ca xadiisu albara ubnu azib bu mu amit ayib ju yem ak jànn ci ñoom ayib ju yees jànn ci ñoom wax nopp ñeent ya ñooy soox pat wopp yooy bu muccee ci ayib nag ju fes ak ju fesul muxtaar mangoogu bu ci boolee am béjjën jaxase weex ak ñuul te ñuul ñuul ya bañ a génn la war bët ya la war ga biir ba tànk ya daal nekk tànneefu ni ki mu dikke ci xadiisu sayida Aïcha ba te mu indiloo ko ci paaka lu mag daaloo ko ko ciw doj ca mujj mu ñaan yàlla nangul ko mook waa këram te ñooy ahlu kisaa am na ñu ko yaatal def leen juróom benn am ñu ko yaatal def leen fukk ñaar am ñu ne ku bokk ci bani hasim rek te gëm ko ci la am sax ñu weesu loolu waaye la lu lu mu gën a néew rek la wax ji di gën a maan yenu maanaam ndax day laaj ku ci bokk ku ne sell gu mat sëkk mu teg ca ñaan yàlla mu nangul xeetam wépp an xurwat ibni zubayri an aisata anna rasulallahi sallallahu أمر بكبش الأقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد فأتي به ليضحي به فقال لها يا عائشة هلم المدية ثم قال اشحذيها بحجر ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال له محمد وآل محمد ومن أمة محمد mu war nag képp ku ko man kay asgar di ab jullit moo xam mag la wala ndaw góor la wala jigéen fii ba sawar jot fi def gi gëne kum jàppandul ci moom fii ba jant bi so gannaaw ëllëg fu ko def fu ko fi defee te du génn te du guddi baax def ki lu mu gën a jege yor yoru tey bi ci lay gëne ba mu des ëllëg ca gannaaw tisbaar bu boobaa ba yor yoru gannaaw ëllëg la gën a taamu ci waxtu woowu ak doon kene moo gën a sol lii lañ tënkoon ci bis bi dundal ci sunnes ku tedd ki sallallahu alayhi wa alihi wa ni ko yenn waroon xam-xam waxe te mooy fàttali xamle lu aju ci tabaski mi bu dee koor mu daa fàttali xam ne ci mbirum koor ndax du ñàkk ñu fàtte du ñàkkit ñu jutul a xam sax bay fàtte te mooy roykaay bi ci lépp lu mu daa def te jegoowu ko moom kepp yàlla na yàlla nangul gi ak ya jëkk ak jaamu yàlla yépp rek te yàggal fi suñ kilifa gi yàggal ñu it ci gannaawam te may nu wér ñun ñépp may nagu njub léegi ñu jox kilifa gi kàddu